professeur ñu ngi lay nuyu. waaye si jàmm noo gisee randonnée bi. randonnée bi wax baax a baax la parce que xam nga tey ñoom solo lañ ci dëkk. Mhm. ndax maanaam euh, lu mu suturloo ba war a génn àdduna gis la. dëgg la ci ñoom la doxee euh, si loxo la dox. dëgg la war a ceeb nag ñoom ay rugosaat. rawatina dëgg yàlla. dëgg la ndax kenn fenn. dëgg la ndax lépp fi yàlla may set na merci merci merci. naka mu ça va patron noo gisee randonnée bi. maanaam ñun tailleur yi sama patron Omzo. waaw gisee randonnée bi. waaw la woon daaw bi a a baax. merci. Aja Alif Aja euh, Pambay. noo gisee randonnée bi. ah waaw xaaral baabu moom du ma ko jël. <laughs> non randonnée bi moom c'est bon parce que xam nga daaw ko. ñoo ngi si nii moom vraiment ñu ngi rafetlu teewaayu autorité yeeg kilifa yi fi teew yëpp daal ñu ngi leen ñu ngi leen rafetlu seen ne yal nañ ko yàlla may ñu fekke ko ay déwén di déwén. amiin incha allah amiin amiin amiin léegi ma jël ñu jël sama gars yi mujjee sama doyen laay lum ak seeni doyen laay ça va mbaa lépp jàmm rek noo gisee randonnée bi. doomu classe bi nga xam ne mhm. dañ génne suukar si dañ ciy génne wala seen suukar mhm. waaw suñ biir yuré yi topp ndox mu sedd ma ak yi seedi bul daw seedi bul daw waaw loolu la am na solo loolu macha allah dëgg la dëgg la ok jërëjëf jërëjëf acca jigéen ñi randonnée bi kaay bi kam sa lay ziar naka waxal benn moo ci randonnée bi ah, Mm. ok jërëjëf soxna si. aca ah, maître Faye ça va. Ah, waaw kontaan nañ moom kontaan nañ torop moom. dëgg la lii dafa dëgg la dëgg la eh, kontaan nañ daal. macha allah macha allah jërëjëf. ko fekkee waat déwén nag jërëjëf. Oh. yaay ñoo ngi ne ci euh, logo I love Gossas bi di ko ziar ñu ngi xoolaale tamit sabotage yi fi defoon sabotage yi ñu defoon ci logo I love Gossas bi man bi muy am fekk ma génnoon nekkoon ci fees naaj bi ma ne woon su ma ñëwee naa ki def naa fi def émission mais am na yoo xam si ni rafetul quoi vraiment image yi rafetul ci Gossas bu ñu di defar ñii di yàq donc Gossas du mën a jëm kanam waaye nag euh, comme ni may wax rek lépp loo xam si jaaral na leen ko ñoom ñi yàq ñun ñuy defar dinañu ko daal ñu ko jaal donc bu Adama Diallo defee wala benn doomu Gossas sacrifié wu def dara macha allah dañ ko war a protéger koo yàq sa bopp nga ko yàqal image yi ñaaw nañ loolu doyen Xaadim taxawal fii ma jël interview nga waxaale ci sabotage yi ñu def ci logo ay logo Gossas bi naka yaa ngi si am ça va bien noo gisee randonnée bi. defee dëgg yàlla ñu ngi sant tailleur yi moom baax a baax a baax ndax tamit day doxal secteur bi ñu nekk. dëgg la aussi secteur bi ñu nekk nit ñi di leen gis tamit aussi ñu xam ne ñu ngi yëngu si dara def si baax. dëgg la ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. d'accord merci léegi yow euh, logo I love Gossas bi nga xam ne si nii benn doomu Gossas bu ñu naan maa Aliou Gomis moo ñu ko may ñu xëy xëy ñu inauguré ko le 31 décembre euh, en collaboration avec le maire de Gossas ñu xëy gis sabotage yi ci ci logo bi yow. lan sa impression. waaw waaw ñoo ngi sant waa famille Flores comme ni ko a baax euh, na trop waaye nag aussi tamit dama yaakaar ni lii moom sabotage la quoi ak lu mu mën a a la te sabotage baaxul lii nii day tax Gossas waa bu bëggoon a dimbali Gossas bu gisee nii xelam dootul dal. dëgg la dëgg la dafa war a ñëw def lu rafet Gossas ñëpp jàpp si kenn ku soo ko gisee lu yàq sax muy man muy sama morom boo gisee lu yàq sax. nga ñëw la ma defaree dara wala yow boo defaree dara bu keneen na gosaas bu ñëpp ñoo doon ay gosaasiste mooy un gosaas soit positif nekk doon bañ a doon politicien même buñ dee politicien mu def lu baax gosaas dañ ko war a protéger rafetlu ko parce que ci ñun lañ bokk si ñun lañ bokk ndax lii tamit wax dëgg yàlla nekkul lii li may wax ni nekkul euh, Adama Diallo moo fi ñëw taxaw kii man maa fi taxaw dëgg du Adama Diallo moo fi taxaw du keneen du beneen politicien du beneen politicien dëgg la ñoo fi ñëw ñun Gossas waay kon nag ñun Gossas waay yooyu di fi ñëw dañ jàpp xam ne lii suñu yëf la Adama ñun Gossas waay ñoo ko ñun ñëpp ñoo ko moom ñun ñëpp ñoo ko war a protéger gaay yi jàpp leen si waaye Gossas wax dëgg yàlla waroon na romb waaw dëgg la de am na benn affaire bu ñu defar benn nit ñëw na yàqu wala a nit ñëw waaye ku ko mën a yàq tamit yàq nga alalam alalam la yàq dëgg la mën a doon dëgg la nekk xale mu nekk mag alalam la yàq dëgg la famille Gomis ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm ndax wax dëgg yàlla ñëpp war nañu roy si ñoom def comme ñoom ndax kenn ku nekk am nga loo war a mën a macha allah participer pour ko sas macha allah jërëjëf doyen aja doyen aja naka mu noo gisee randonnée bi waaw xam nga vraiment gis ñëpp di gërëm ñëpp ah di remercier vraiment les tiers

jàppale maanaam artisan si ko fas dëgg la dëgg la uti dina ñaan bu ñu mën a jàppale dina jàppale léegi mënumaa mënumaa aussi ci sabotage yi nga liñ def au niveau du logo ay logo Gossas waaw ah, loolu loolu loolu loolu vraiment c'est déplorable c'est regrettable c'est dommage man du ma wax sax xamal may ragal ah, keneen dégg ko bëgg def dara rek ko foofu laay réglé man pas sax moom comme li may wax rek ñoom yàqkat yi lim leen jaral ba ñuy yàq ñu dañ ko jaral ñu ñu koy protéger te duñ te te duñ duñ ci duñ ci dellu gannaaw question nam lañ ñaaw na si départ bu rafetul gis-gis. dëgg la na ki ko fi def. dëgg la Adama Dia ak ma Allah xam Gomis. dëgg la erreur la on n'a pas pris nos devants. effectivement effectivement am na waaw on prend noonu mesure de si doon. vraiment ces heures de table daal loolu mooy vraiment. effectivement merci jërëjëf merci encore ah. la. caat la si si bi. mais dafa ñëw rek nekk mag. dëgg la ñëw raam rek nekk mag. gis nañu si jàng yi démb fi paxa gis naa la kay laaj ñaan nag aussi ni ma ko ñaanee moyens yi dana ko ñaan aussi dimbala la laab ak li wax naa ko. amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf ok jaajëf waay la. sëñ bi eh, xale bu ndaw rapport bu ma. Ah, yaa yëngal ko saa saa yi. waaw ah, loolu aja wax ñu dara ci nañu ko affaire bi nice na rafetlu nañu ko macha allah gars yi wootee ñëpp ñëw xam nga ñu àndandoo def benn mouvement mu doon initiative boo xam initiative rafet la ci mag ñi ak ci ñi nga xam ne seen ñooy def seen wér gu yaram boo xoolee tey jii message gars yi bëri nañ ñëw jàpp si combat bi vraiment lu rafet la man ma ba xam nga sama aussi xam nga bu rafet la ñu ngi rafet vraiment di wax ñu continuer bi parce que bu rek ñu dinañ am seen gu yaram gars yi dañu a jàpp sa gosaas na aussi tamit yow tamit gis sa jour yaa ngi ci jaajëf xam nga euh, dëkk ko la baat wala Sadio doomu Colobane na de man <laughs> uh-huh. dëgg la Gossas laa jàngee. dëgg la Colobane laa yeroo. ndeysaan man ñetti ñetti yooyu mën ma si. lépp go lépp Gossas la. est-ce que Sadio ci Gossas la bokkoon. waaw waaw lépp ci Gossas la département la Gossas la. dëgg la dëgg la mais ñun moom ñu ngi fi quoi lépp lu waay di def ñun ñu ngi si kawam xam nga ñu ngi liggéey aussi tamit di waajal ay projet mhm. le 3 février maa ngi def benn concert plein air. waaw yaa ngi publicité de danga may fay de. non non ah. xam naa xam naa nag danga maa xamul mais man yàgg naa laa siiw. boo duggee sa compte. sa vidéo yi nga fa def yëpp aimé naa ko partagé naa am na sax yu ma commenté. dëgg yàlla bu yàgg naa laa suivre xam naa la bu baax peut-être yaa ma minute. waaw man xam naa la mais liggéey bi rafet na da la nga gën a jàpp rek. dina baax bu soobee yàlla. merci beaucoup jaajëf ok merci. Ali da nga ciy sànni kàddu aja eh, yow yow coiffeur nga mais ban relation nga am ak eh, kii tailleur yi ba à chaque fois yow ak sa patron Omzo damay gis ne Omzo ñu bëri ko sax dañ koy dañuy foog ne tailleur la quoi. waaw ndax xam nga lu waral loolu ñun dañoo ñëw eh, pour ma wax loo xamante ni ndax ñun dañoo ñëw dañoo yaakaar ñun lépp la ñu xam ndax tey ñun ak ñoom ñoo dëkkandoo boo ñëwee boo ñëwee fekk seen biir. boo ñëwee suñ biir ñoo tax ne dañoo war a rafet na xam dëkk bi ñoo ko war a quoi dëgg la ndax ñun ñoo fi dëgg la effectivement nga dëgg jaajëf jaajëf rafet na trop ok merci beaucoup après yow nañ jégal aja bismillah ñëwal ñëwal dama ñëwal mo bi ah ko jël aja bismillah soxna boom pâtisserie yi. mais lépp jàmm maa si publicité la defaloon rek am na ay retombées. Ah, vraiment euh, merci naa bu baax. jërëjëf ah, mm-hmm. ñu lay mm-hmm. euh, rek. Mm-hmm. may nuyu département de Gossas yëpp di am kontaan di xew. ndax li xewul ren amoon na daaw am daaw jéeg te buñ ko organisé ñun dañuy ñëw teew restauratrice parce que dañoo nekk suñu càmmiñ yu baax ñoo xam dañoo ne si dëkk bi liggéey liggéey bu rafet dëgg la ñu xew yëgal ñu ko kon ñun artisan yi dañoo war a booloo nekk benn kenn bu xewlee ñëpp ñu ñu ngi si tànk man dañ leen di yàlla yokk ak wér ak gudd fan ba ba fu ñu bëgg egg ak artisan yi egg dëgg la artisan yi dafa yaatu te artisan ñoo moom réew mi moom dëkk bi kon ñëpp dañoo war a nekk benn am doole di xàccandoo di dóorandoo ba fu mu bëgg a egg. macha allah ah jërëjëf ma bàyyi sama. sama collègue bi sànni si ay kàddu. bisimilah soxna si sànni ci jërëjëf. ak développement Gossas. incha allah incha allah day baax incha cuun cuun cuun bul dem yow boo fes nag cuun direct la de boo fes nag kaay wax tuuti ci fes nag bi waay waaw kaay wax ci tuuti waay. naka mu. cuun maa ngi lay ziar. ça va le président des acteurs culturels. waaw mais noo dundee fes nag di ànd koog yow tamit am police esprit. dëgg la vraiment nga def ci liggéey bu am solo. ñu demoon fa représenté tout le département de Gossas. Euh, yóbbu euh, yàlla suturaal na ma bi ñuy ñëw ñu indi ay prix. ndax jël nañ compte bi jël euh, li nga xam ne moom mooy art culinaire ak coiffure. Mm-hmm. suñu éléments yi bokkoon tamit ci comp ci régional bi tamit bokk nañ ci trophée yu gën. en plus rab bi tamit ñoo jël troisième. voilà ci sant yàlla. culture urbaine. ndax wax yàlla. لكن عاد اللي يبغوا خمو بطاس قلت من خمن بطاس مارك نعم كل بنت فسنا انا سايسر ما نتاكد انا خمن بنت نعم كل اللي بنو دي من اللي بنت سو خم ني في بطاس دغ لا انا اكثر بو خمن كات بو خولي ني في ني دغ nga xam ne mën nañ macha allah dama dama fekk ci benn foo xam ne tey mun naa ne ni ma waroon waxee sax mënu ma ko waxee. Hmm. li ma fekk te mu nekk actualité bi. mooy sabotage bi mooy sabotage bi nga xam ne moo am bagage yoo xam ne hmm. ñu koy def ak wala ñu koy def damaa jàpp dañoo conseillé wu ndax lii bu ñu jàppee baaxutul lañ koy def. Hmm. wala Adama Diallo wala Seydou Dior dañoo tax seen bopp. ndax lii man daanaka bañ ko inauguré maa ngi fay doog tey taxaw kon man ñëw ma fi ñu ko doon wala dañ ko def mu doon benn biir am na ci loo xam ne waa coopération yi ñoo jël seen mm-hmm. dafa am loo xam ne même nit la dee poussé ci yàq mm-hmm. war ngaa xool ndax li ngay yàq man après kan la yàq. Mm-hmm. parce que boo fa aadama daal ma taxaw fi di photo doo fi gis saraar nga li waa kër mi taxaw fi kon yëfu gosaas am na di wuyu si ci bi nga xam ne foofu la leen monsieur le maire mooy benn gosaas bu unir ñu xam ne ñun ñoo moom Gossas kenn ku ci nekk mais bu mu mënul defar sax man je pense que ce qui est nécessaire wala li nga xam mooy bu ñu defaree nga jëm kaa sàmm li a bés ku daanu mais lii tey ki ko def wóor na moom bu fi jaaree dina xam ne def na erreur boo xam ne fu mu doon da koy rëcc da koy rëcc boppam la yaaxal après kan kan lay wax yaaxal mm-hmm. moom moo koy xool xam ne jëf ju ñaaw ko def la après mu jëriñ ko lan te yow da ngay bëgg photo man dama ko da ngay dem mu mbuur parce que lii am na fa dafa fa di photo mu nekk image rafet ñu ñëw jël di jël xaalis def ko le maire ma ali ko tamit ki nga xam ne moom Thione tegal foofu sa baam suba suba ñu ñu yaatal buñ demee ci préfet pour remettre ko di ci c'est symbolique yi après ñu gën a yaatal quoi waaw ñu wax ah suba ñi nga xam ne ñoom ñoo gañe woon dañoo bëgg a dem au préfecture gis la préfet comme moo ñu doon liggéeyloo moo jiite woon délégation yi ci suba gi ànd ak moom yóbbu trophée mhm. ñoo gagné mu jébbal leen seen i trophée ànd ak population bu sax félicité leen parce que ñoom tamit dañuy def ay ambassadeur bu sax sax ñoom ñoo dem pour représenter tout le ci am delluwaat ci kilifa gi ànd ak ngeen ko àndale jébbal leen seen i trophée merci Thioune merci Thioune

rawatina benn plateau ay seen ñëpp lépp da ngay jiw. dëgg la jiw sax danga dul matal quoi. dëgg la mais vraiment ñëpp kontaan na parce que ñëpp jàpp nañ kon vraiment ñu ngi sant mbooloo bi mm-hmm. na vraiment kontaan nañu. macha allah ñu ngi ñaan ñu fa koy bare bare. lu waraloon sa teewaay ci randonnée bi. salaamaaleykum mbokki Gossas salaamaaleykum département de Gossas ñu ngi sant ñëpp leen gërëm suñu teewaay fii li ko waral tey mooy randonnée pédestre bi nga xam ne téer yi nekk dans la commune de Gossas te suñu mag Cheikh Mbacke gi jiite leen ñun ñoo ko def woo ci pour ñëw ànd ko ak ñoom ci thème lan la téeru Gossas yi mën a apporter seen commune mu nekk lu am solo loo xamante ni mënuñu ko woon a ñàkk ba teewe dañ fi ñëwal suñu turu bopp en tant président du conseil départemental de Gossas mm-hmm. waaye dañ fi ñëwal turu monsieur le maire de la commune de Gossas mm-hmm. nga xam ne moom moo leen bokk jabooti directement dëgg la moom ci biir dafa am empêchement ku nekk xam na ko mm-hmm. dafa gunge woon président de la république son excellence Macky Sall Mauritanie

merci. di wax parallèlement rek. Mm-hmm. Euh, mënu maa ñëw fii ba dem. Mm-hmm. du ma mm-hmm. moom vraiment ñëpp koy condamné. ah dinaa ni kenn ku ko xam naa ne ki ko def sax dañuy wax il est emprisonné dans un tribunal. boo xam conscience bu toojee. dana xam ne mu def rëcc ko leer na mën a rëcc. effectivement waaye tamit dinañ jël suñu ay disposition dinañ jël ay disposition yoo xamante ni pare nañ pour def ay vidéo wala ay caméra surveillance. effectivement yoo xamante ni bépp eh, ko fi dugg.

ama a Aliou Gomis mi nga xam ne moo ko may la commune de Gossas mm-hmm. ko la maire Adama Diallo mais commune Gossas mm-hmm. doomu Gossas yëpp la ko may yàlla ayu la maire Adama Diallo dëgg la donc ñun ñëpp dafa war a nekk suñu fierté ñu am espace bu mel ni di fi taxaw di fi communiquer di wax ak Gossas moom tamit ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm di koy taye de la commune de Dakar bisimilah soxna si présenté wul nga. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu mbokk waa Moussa Diop la secrétaire général de l' association des tailleurs euh, ñoo ngi ci journée bi euh, di nuyu suñu président bi ñëw bàyyi lépp nga fekkee si événement bi euh, suñu président bi ñu ngi koy nuyu di ko ziar lu bu ko moom sama xarit la wax sama doomu bopp la maa ngi koy nuyu lu bari di ko ziar lii euh, di liggéey bu kontaan nañ ci wax dëgg yàlla gis nañ tamit taxawaayu monsieur le maire Euh, tànk yi ñu ci taxawoon daaw yëpp taxaw na ci ren gis nañ ko euh, nu toll wala nu ko raw ñoo ngi ñaan yàlla fekkee déwén euh, te déwén tamit ñoo ngi ñaan ah, réussite bu mu am rek yal na am réussite bu ko ëpp déwén kàttanal suñu borom ñoo koy ñaan lii tamit ñu ngi koy rafetlu wax dëgg yàlla ndax gosaas moom lañ am lu ko jëmal kanam lu ko taaral loolu rek lañ jóg kontaan nañ ci asalaamaaleykum wa jërëjëf jërëjëf naaj bi dafa tàng jërëjëf kaa leen dem ci baas ba aca bisimilah jërë ngeen jëf waaw wala Ndiaye aca bisimilah mën ngeen dem ci naaj bi moom mu kii kër gi moom mu kii moom xale xale la bisimilah euh, solution euh, solution laa lay wax aca bisimilah waaw Loum Sëñ Tuubaa TV waaw ñun de amaan nañu mbégte bu baax ak sant ak dooleeku waaye jëmee ko ci li nga xamante ni moo neex Gossas ak li wër département waaye tey saa xoolee xam ni boo gisee mu tënk ci li wër Gossas ak département mooy pertinent conseil départemental moo fi teewal fi monsieur le maire jox dox it yëpp waaye saa xoolee lii xam ne sponsor pétrosem la te chaque année ñu ànd ak moom ca man maay vice président ah, maa nga ko defee léegi bu yàlla dogalee nag liñ jàppale ne moom dañuy def fan yii Serigne mooy lii la yàlla dogal si di xamal gars yi ni leen maanaam lii chaque année koy def te noo bëgg ay intervention yoo xam ne yaatu bëgg ñëpp ñëw teg ci loxo jàpp ci lépp ndax kenn ku ne xam ne sa nekkin ak sa doxalin. waaye li nga xamante ni moom la ñuy dox ci jamono daa laaj développement yoo xamante ni da nga ko war a def ci tey doxee ko surtout ay jumtukaay yoo xamante ni yu bëri la yoo ñu a doxalee bëgg tey ñi nga xamante ni ñooy autorité nekk ci dëkk ñi nga xamante ni ñu ngi jàppale ñeen ñëw jàppale ko association danaa ko ñu yóbbu sax jaajëf jaajëf sëñ Touba waaw mais yow mais yow dañuy yaatal yow émission entière jël yow dañuy